salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan RTT TV ñu ngi leen di nuyuwaat ci seen euh, télévision bu mag bi di télévision des artisans de Thiès euh, ñu jox leen seen wàccuwaay ci waay mën a nekk ci àdduna bi ñu bu baax jox ko wàccuwaayam di leen jaajëfal euh, ci bëggee gi bi ngeen di bëggee télévision RTT TV ak émission yu solo yi nga xam ne yéen a koy suivre dañu encouragé waaye ñu nuyu leen jox leen seen wàccuwaay nuyu kilifa diine yi nuyu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides ñaanal ko suñu borom toogaay bi ñu gën a yàgg naal yi mu naal mu àggale ko ak sagoom nuyu njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp waaye nuyu Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général de Tidianes euh, ñaanal ko moom it suñu borom dal fanam euh, toogaay bi mu toog ngir euh, liggéeyal islam wutu ci maam yu tedd yi mu def ci lu waaye ñëw fii ci Thiès nuyu xalifa bi Serigne Ndiiru Njegeen suñu maam Ahmadou Baro Njegeen moom it ñaanal ko bu baax li muy liggéeyal islam suñu borom kàttanal ko ba mu àggale ko ak sagoom waaye masowaan mbokki Thiès ci kilifa bu tedd gi fi jóge bu yàggul di Serigne Saliou Touré euh, jaale ko waa Thiès waaye ñaan suñu borom taasuñ ci barkeem euh, nuyu njaboot gi euh, Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré nekk ca bopp ba ñu jox ko wàcc waayam bu baax a baax a baax waaye nuyu mbooleem secteur artisanal bi nga xam ne ñoom la ñu jagleel émission bi nga xam ni mooy 100 pour cent artisanal ñu ñu leen koy amal fii ci RTT TV di nuyu sunu ministre de l' artisanal Euh, jox ko wàcc waayam bu baax a baax a baax nuy aussi ki nga xam ne mooy président chambre de métier de Thiès euh, c'est Amadou maxtal Seye moom it euh, ñaaral ko bu baax liggéey bi muy liggéey secteur bi mu def ci lu kawe njortam mbokk yi amoon nañu mbégte tey ngir ñëw indi leen ay gan ñoo xam ni secteur bi xam nañu leen ràññee nañ leen seen taxawaay ci sama wet yéen a ngi fiy gis. président Pape Ibrahima Ndoye mi nga xam ne moo jiitee menuisier bois yi nga xam ne ñoo nekk Thiès euh, di ci liggéey liggéey bu am solo ñu nuyu ko président ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi seetaan RTT TV ah mu ngi daal. ngi leen di fay di leen nuyu. di nuyu aussi euh, auditeur auditrice RTT di nuyu personnel bi di nuyu président du Seck. di nuyu aussi président Ndiassé. di am contentement aussi dellu si waat ci rajo bi ak télévision bi pour euh, ñëw waxtaane mbiri artisan mu mm-hmm. ngi ciy am daal contentement bu mag a mag mm-hmm. macha allah président nuyoo bi am na solo ñu ne ñu ngi am mbégte bu baax ci ñëwaat gi euh, ndax kër gi sa kër la miin nga ko saa su nekk yaa ngi ñëw di waxtaan ak ñun ci secteur bi euh, waaye nga am taxawaay loolu ci secteur bi ñu jaajëfal la bu baax ci ñëw gi sama wet aussi maa ngi fi amaat président Ndiassé Kaye di grand Euh, ci wàllu secteur couture bi ñu nekk président ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sama mm-hmm. cooy. Mm-hmm. xam-xam ci wàllu secteur bi. Mm-hmm. ñu jóge ci loolu ñu ngi nuyu le président Mamadou Seck. ñu jël ko teg ko ci bépp artisan ak bépp couturier bu nekk ci biir dëkk bi. bee ci jigéen ñi teg ko ci loxo présidente Ndoumbé Diakhaté. nuyu leen bu baax euh, président moom Mamadou Seck présidente Ndumbé Diakhaté euh, nuy nuyu leen waaye jaaree ci ñoom nuyu teer yëpp ni ko président Ndiasse waxee euh, ñu jaajëfal ko moom tamit mu am taxawaay lool ci regroupement des terres de la région de Thiès waaye am ko ci teeru Sénégal yëpp foo ko tudd ñu xam ko moom la ñu am tey comme invité mbokk yi xam ngeen ni secteur artisan tey mu ngi nekk ci ay jafe-jafe yu metti yoo xam ni ay ndawam tey ñu ngi risqué seen bopp di dem ci mbëkk mi ngir lan secteur artisanal euh, moo xaw a dee ba gisatuñ ci seen bopp ba tax amatuñu yaakaar euh, ñu commencé di euh, tayle seen bopp waaye di bàyyi seen métier di dem ci leneen Euh, xañ na du lu bees sax ndax avant ñuy gis mbëkk mi euh, gis nañ ni euh, jakarta yi commencé di nangu jeunes yi di leen récupérer di leen tàmmal loolu nga xam ne mooy xaalis waaye di di leen perteloo seen métier parce que gis nañ jakarta yi bi fiy soog a dugg xale yu bari dañoo bàyyi seen métier dem songi ko waaye tey ñu gis affaire boobu en arrière mais dafa avancé ba tey ñuy bàyyi di dem ci mbëkk mi waaye li ci gën a doy waar mooy di ci ñàkk seen bakkan xam naa ne bi ci loolu la ñuy waxtaan Euh, ba la ñuy ñëwaat ci yeneen ndax cité nañ fi trois points yoo xam ne war nañ ci waxtaan ak euh, yi ñu fi bokkal lu ci mel ni projet PEJA bi aussi war nañ ci waxtaan ñoom it ñu indi ci ay leeral ndax projet amoon solo la ci artisan yi waaye gis nañ ni projet bi mu ngi euh, diire 2019 ba léegi mu ngi fi ban avancement la am xëy na acteurs yi dinañ ci indi ay explication waaye ministre de l'artisanat bi nga xam ni amoon nañ ko ci secteur bi te ñu remplacer ko bu yàggul danañ xoolal moom it euh, lan la fi bàyyi lan la apporter secteur bi waaye bi mu demee aussi tamit ki fi nekk lan dañuy xaar ci moom loolu dinañ ci ñëw ci kanam waaye Ndoye ñu bàyyi la nga def sa réaction ci première question bi euh, mooy secteur artisanat tey mu ngi perte ay ay ay ndawam ndaw ñu bari tey découragé nañ ci jàngi métier découragé nañ ci euh, toog am patient xaar ni xam ni dañoo war a jàngi métier ëllëg ñu yor réewul secteur bi. waaw merci Mame Khadim loolu moom. Euh, je crois que sénégalais yëpp def nañu remarque bi ne tey jii migration clandestine rawatina mbëkk mi buñ ci waxul wala jëluñu ci ay mesures dana gën a jéggi dayoo ndax li xew sax jéggi na dayoo ndax li ñuy wax ci ay mort ay blessé léegi ñuy wax ay jigéen léegi ñuy wax ay xale yu ndaw donc jot na nit ñi taxaw ñu waxtaan pour trouver solution bi mm-hmm. man nag ci suma xalaat bu gàtt ak suma xam-xam bu gàtt mm-hmm. solution bi mm-hmm. artisanant moo ko am moo amee solution bi moom rek moo am solution mun fu ñu ko wuti duñ ko am ci artisanat rek la ñu mën a jaar pour régler solution mbëkk bi en quoi faisant mooy non seulement nga dooleel euh, artisanat dooleel artisanat mooy nga fexe artisan yi am possibilité di liggéey am accès au marché di am mën a am lu tax ñu téye atelier xale yi ci atelier yi mm-hmm. loolu benn la mm-hmm. indiwaat fi renforcement de capacité bu tax nit ñi seen xam-xam di yokk ñuy mën a am ay diplômes yu kawe ba mën a am ay diplômes supérieur mm-hmm. loolu aussi day tax nit ñi gis seen bopp ci ci métier bi beneen bi boo seetloo immigration clandestine bi fi ci ëpp fi ñuy dem ñu ngi entre Espagne mhm. ak Italie moo ëpp moom moo wala moo gën a fés. moo gën a fés waaw mais ñooñu offre bi ñu soxla. Mhm. nañ ko wax le gouvernement sénégalais le gouvernement sénégalais yi euh, confier ko artisans yi artisans yi formé leen ñooñu ñu dem. dans la légalité c'est possible c'est-à-dire entre gouvernement ñoom war nañu mën a waxtaan. Mhm. dañoo soxla ay menuisiers ñu former leen ay menuisiers. dañoo soxla ay baykat ñu préparer leen ay baykat. dañoo soxla ay menuisiers métalliques ay mécaniciens ay tapissiers ñu préparer leen loolu. ñu mettre atelier yi dans des conditions yu tax ñu préparer loolu certifi certifier leen ñu defal leen contrat yu leer ñu dem par pour un an deux ans bu ñu dellu xam nga commencé woon nañ ko ci affaire huit bi. Ah, mais aussi loolu aussi bi ñu koy def maanaam doole lu nu artisanat parce que benn secteur moo fi nekk. di defar. di jubbanti di defaat ci réew mi mooy le secteur artisanal li secteur artisanal di def ci réew mii ci yar ci insertion ci formation beneen secteur defu ko mais li tax secteur boobu ñu bàyyi ko en mm-hmm. tey jii ñun ñi nga xam ne tey ñoo waroon doon modèle fu nu romb nit ñi roy ñu parce que macha allah dañuy mel ni ñu war a mel dëkk fi ñu war a dëkk am ni ñu war a dëkk xam nga bu demee ba nit ñi gisatuñ ci ñoom gisatuñ seen bopp ci ñun mm-hmm. ñoom it dañ naan métier mi dara neew ci ndax paa yi ñu ngi fi depuis 40 ans amuñu dara mm-hmm. xam nga mm-hmm. nit ki day bëgg day bëgg ci dundam di am naataange di am jàmm am kër am jabar am doom loolu mooy objectif nit ñi te boo seetloo tey ñi ñiy dem ci mbëkk mi yëpp boo leen laajoon boo dégloo sax yi ci gën a festivé damaa bëgg a teeral sama yaay. Mhm. damaa bëgg a teeral sama papa baat yooyu rek ngay wax. baatu teeral nag mooy nga am teraanga. delloo njukkal sa woy jur. Mhm. kon ñoom am na lu ñu am mais peut-être fi ñuy jaar moo wóorul walla baaxul ay dee di ci am ay blessé di ci am ay yàqu di ci am. Mhm. loolu war nañu mën a toog. ak secteur bi. ndax secteur bi aussi quoi qu'on dise dans l'artisanat ay artisan yu xereñ mm-hmm. Thiès gi ma xam mm-hmm. ay artisan yu xereñ loo leen confier mm-hmm. en matière de formation ci liggéey mën nañ ko def loolu leen ay acteurs yu xarañ ñoo fi nekk am na problème boo xam ne dafa posé wu président euh, parce que bu ñu gisee euh, des fois xale yi di génn ci biir atelier bi nangootuñu euh, jël seen yaakaar teg ko ci biir atelier wala ñu toog jàng métier ci biir atelier xaar ko fa problème day dafay am foofu parce que ñu ci bari ci atelier yi la ñuy génne doo xam lan moo leen génne te bu ñu génnee dañuy naan dañuy tere li ci seen wéyjur moo tax ñu génn. xam nga xam nga artisanat. dañoo war a adapté wu. ci jamono. gis nga li portable yi def. ci jamono. artisanat noonu la war a adapté wu. ñun waruñu nekk fa ñu nekkoon de cela trente ans quarante ans. dañoo war a évoluer. tey gis nga portable li mu indi ci jamono. buñ ko doon lim xoolal ref li indi ci jamono. loo bëgg a photo photo ko loo bëgg a yónnee ko loo bëgg a woote woote ko loo bëgg a gis gis ko mm-hmm. mënatoo jël xale mm-hmm. di ko téye ci sa atelier 9 ans wala 10 ans wala 12 ans d' apprentissage loolu mënatu la ne mënatu la nekk mënatu la ne mm-hmm. apprentissage ci métier man jàpp naa ne 2 ans 3 ans doy na sëkk nga certifié xale bi léegi nag mu seet nu muy def doy doy insérer ci entreprise wala da nga koy insérer sa entreprise di ko nekk di ko renforcer. Mm-hmm. dafa am élément de base parce que trois ans d' apprentissage. Mm-hmm. xale bi dafay am ay besoins dafay am ay soxla. Mm-hmm. xam nga mënoo nekk sa atelier bi trois neuf ans. jëlil añ demal fii yónni fii mandat cent franc deux cent franc xale bi mënatul loolu. xam nga comme mënatu ko nag ñun ak état bi ñoo war a waxtaan. ci programme de formation yi programme yi léegi nan lañ koy baralee ba xale bi. mën a am certification ci délai yoo xam ne délai région ba pare dana am xam-xam. Mhm. ndax déjà ay des gens très qualifiés. Mhm. jaase boo ko joxee xale. jox ko équipe mettre ko dans des conditions ne ko téer yi dama leen bëgg promotion bi trois ans laa la way pour nga former mhm. jox jox ko module de formation bu muy processus boo xam ne moom lay topp mais jaase da koy def. parce que xam na li ko li xam ne non seulement li mu ciy gagné. mais xam na aussi honneur bi mu ciy am ci métier parce que loolu xam na ko mën na ko. mais kan moo koy accompagner kan moo koy gunge. je crois que ki ci gën a jekk mooy état état moo ci gën a jekk moo ko moo ko war a gunge loolu mooy analyse u euh, président Pape Ibrahima Ndoye am na solo euh, président euh, Ndiasse dégg nga question bi tey secteur artisanal mu ngi perte ay xalem commencé woon na ko perte ci bi Jakarta ñëwee mais tey gisaat nañ beneen phénomène boo xam ni gën na foor muy jël mbëkk mi ni seen yaakaar yëpp bitim réew la nekk effectivement sëñ Khadim mm-hmm. loolu moom dëgg naa ni mbëkk mi li mu def moom mm-hmm. jéggi na dayoo moom ni mu toog sax di ko wax. Hmm. tout bi ma demee Kansan bi maa ngi gis benn famille ba nga xam ni au niveau de Joal huit personnes. Hmm. dem nañ ci mbokk yi ñoom ñëpp ñu desal. huit personnes. mais léegi dañuy la Sénégal moo am jeunesse ba nga xam ne dañoo am perte de vitesse. Hmm. état sax mënul contrôler perte de vitesse. te perte de vitesse boo ko déggee mooy kii ñëw en danger la que perte de vitesse kan moo koy contrôler c' est l' état. dem na ba baisser les bras. ci secteur bi. dem na ba baisser les bras sur la jeunesse sénégalaise. Ah beneen bi ñun ñu nekk secteur artisanal ñun ñoo ñu nekk di jooyanti. Mhm. beneen bi boo ko déggee mooy le secteur artisanal dañu créer benn ministre sans portefeuille. sans portefeuille. ah laa ko mën a tuddee ministère bu amul budget loo ko mën a tuddee. ah non. Ah, non duñ ah, ko mën a comprendre da ngay am budget. amul budget boo xoolee budget de fonctionnement quand même. Ah, dégg nga dara lu mu def ci secteur bi. Hmm. non dama lay laaj. maa la war a laaj nag. yow yow ko xam ci artisanat monsieur Ndoye mi ngi nii ndax dégg ngeen benn jalon bu mu posé vers l'artisanat au moins ñun ñoo koy dicté sax des fois muy jéem nat na bi tout récemment si ko laajtee mu ni moom amu ci xam mu ne amu ci xam-xam. amu ci xam-xam li ñu yebal ci benn ministre le ministre de l' éducation. Mm-hmm. Mm-hmm. def nañu démarche tout ça gis ngeen fi yàpp mm-hmm. kon ministère bi dañ ko créer pour seulement defal les artisans. defal leen. ah mais non mais secteur artisanal les dañuy les soixante dix pour cent de l' di du Sénégal. c' est le secteur artisanal moo ko yor. mais ba léegi état nangoo ci def des moyens. ñu ngi koy remercier au niveau des déjà façon bu ne indi nañ ko bu ne indi nañ ko technique mais non seulement euh, module bi ak kilicom bi ñu indi dañ koy teg ci table bu rafet lay doon neex a présenté mais duñ ko respecté duñ ko respecté buñ ko doon respecté le secteur de l'artisanat dépassé na fii bu yàgg yan ngay wax lu ci mel ne ay 3FPT 3FPT dafa am limite 3FPT il a montré ses limites tout récemment wala nañ seen limite mais formation day ànd ak accompagnement dina mooy former nii rek mu dem yoon amul accompagnement day dellu fi mu nekkoon. ah ñoom dañu ñëwoon pour former artisans yi financer leen waaye euh, formaliser leen. yooyu les financements de police boo déggee benn artisan ñu financé daaw ci li ñu formé gisuma ko man ko te maa ngi ci secteur man bu dégg ko ci li ci làmbatu. financé wuñ kenn. ah gisuma ko kon le secteur de l' artisan buñ ko joxoon àq ak yelleef ñu ci war a jox yaakaar naa ni bëgg duñ ci werante parce que du ma ni du bari mais dina wàññeeku. dañuy les jeunes sont bien formés. Hmm. effectivement les jeunes avec des maigres moyens avec mais matériel yi nga xam ni mën naa ni de amuñu benn matériel de dernière génération boo demee formation da ngay sax da ngay mujj gi yow yaay yóbbu say bagage dañ naan la jox naa la formation mais amul benn moyen tout récemment daaw fii. Hmm. big doo doon jënd sax il a fallu nga appeler le xaw ko menacer mu décanter la situation. mooy formateur bi nga xam ne envoyé nañu. Sow ñu indi woon Sow moom moo délégué man ni ko nan ngay indi benn formation ba nga xam ne biig sax ak feuille mënoo ko jox la ci lay door mobiliser loolu avec secteur boobu ngay def des maigres moyens ba pare. Ah. après doo terminer les renforcements de capacité. wala PEJA bi PEJA dara ko am man bokk li ma fekkee de 1960 jusqu'à présent. Hmm. artisan artisan def naa ko 82 la de dugg Sénégal mu jub. Hmm. lañ ko commencé créer. Hmm. formation bu ko gën. média waaw mais dafa amul suivi te am na lenteur administrative ba nga xam ne d' accord mbëkk mi ñëwoon xaw ma kii bi. léegi Covid bi Covid bi ñëw na freiné ko. Hmm. mais après la ñi ngi ngaay ngi fii. ba nga xam ni yow doote nañu lépp def ko sa commande lépp mais pour nga jot sa matériel il faut nga toog de huit mois ou sept mois. Hmm. Hmm? mais loolu def xaw nañu jaaxal mais secteur bi kon nan ñun upp li ñu ci mën ñoo ngi def. Hmm. beneen bi tamit perte de vitesse day xam xaw am ci les chefs d'entreprise. perte de vitesse lan tuddee perte de vitesse. mooy un chef d'entreprise bu mënul contrôler entreprise am bu mënul gérer bu mënul nekk leadership ci biir entreprise bi ñun problème boobu dañ ko am au niveau de l'artisanat. ah bon si muy benn. donc euh, muy bañ ñëw ci Jakarta boo ñëwee da ngay ñëw fekk la chef d' entreprise dafa dem Jakarta hmm. ci mais apprenti bi sama doom di ko gis hmm. man bu doon sama doom laa fa bàyyi dafa yem chef d' bi nga xam ne moom waaw technicien bi ñuy wax nga téye micro bi euh, chef d' entreprise bi nga xam ne moom mënul toog ci place am xeeb na place am day mujj jël Jakarta dem Jakarta ji kooku problème bi mooy dafa am benn cri de cœur ba nga xam ne dañ ko lancé mais déglu ko hmm. mais entreprise dafa nekk ci di dem à terre un mais damay jéem a joyanti entreprise bi avec les maigres moyens mais jéemoo koo joyanti mais yow yaa ngi dem créer benn kii ba nga xam ni moo yàq le secteur muy Jakarta nga dem di ko def sa apprenti di ko gis bi koy yow est-ce que bu koy def yow di nga ko rek kooku loo mën a digal ci boppam te beneen bi tamit dañuy dem ba apprenti bi ngay jàngal da ëpp xam-xam te def ci bàyyi xel parce que mi ngi gëstu te yow gëstu secteur bi am problème yooyu yëpp mu kon pour régler ko y a beaucoup de problèmes mais mën nañ ko régler li Ndoye wax mën nañ ko régler mën nañ ko régler si fois état bi ñëw jox la même bu la joxee des maigres moyens te ba pare respecté ko. ba waaw ba pare ñu former les jeunes avec les nouvelles technologies les techniques dafa ñu raw. xoolal les machines les machine yi nga xam ni c'est des piqueuses industrielles ba nga xam ni buy daw sax doo ko dégg te amul des années. mi ngi door a egsi si ñun les les machines de dernière génération ba tey c'est bien comme que ñu ngi koy utiliser mais yooyu yëpp boo ko amul les techniques la yow ndax mën nga former kenn bu dem Europe sax pour liggéey même tey lii Ndoye wax xale bi ngay jël former ko comme ñu demande ko loolu il faut nga am les matériels de dernière génération pour former ko boo demee mu fekk fa matériel de dernière génération pour mën a adapté mmh, surtout le secteur c'est ça secteur de artisanat secteur gën ko lépp a ngi ci biir li li artisanat di def école mënu ko def les universités yi ngay dégg yëpp mënuñu def la parce que dina la jàngal dina la yar ba pare insérer da ngay ñëw ka nga xam ne bu jëlee apprenti bi dina ko jàngal ba pare bu ko jàngalee ba pare buy dem da koy jox matériel dem joyante ko ci atelier bi di pare di ko contrôler beneen bi chute bi ma ci gis mooy bu ñu bëggee jàngal élève bi mën nañ leen xale ci trois ans mais bu demee ba baaxee 3 ans. lan ngay am un employé ngay am ci biir activité employé bi mooy lan de 9 heures à 18 heures lépp lu mu ñaw bu dee un costume africain te un costume africain la koy noté temps pantalon maa la koy noté chemise maa la koy noté temps mm-hmm. fekkee c'est la semaine ma fay la bu fekkee journalier ma fay la bu fekkee fin de parce que ñoom apprenti yi ñoo ñu ëpp sarge seen kër mm-hmm. bu ñuy dem am na charge yu tegu seen kaw mm-hmm. parce que yenn âge yu mais ci trois ans aussi tamit est-ce que xale bi mën am métier métier moo xam ne dina bien sûr. Hmm. fekkee ñëw nga pour jàngi métier mu am kilifa kilifa jox la ko. Hmm. bien sûr moins de trois ans da nga koy jàngal mu dem yoon. avec méthode bu fekkee yow tu es un formateur. Hmm. mais dama jëli añ ma yónni la nga yóbbu ñaw avec les libre tout loolu yëpp dañ ki ne ba kili koro bu la commandé ñëw bu paree am na ci yee moyens de transport yoo xam ne da nga ko ci teg mu président gis nañ tamit côté bi dafa am problème boo xam ne ci posé wu muy développement wu entreprise yi waaw da ngay gis ku yor sa entreprise euh, toog di xaar client doo gis client problème yi commencé posé wu entreprise bi day mujj euh, daanu wala mu am ay problème suñu xarit kooku du tey rek ñoo bokk benn groupe mais du tey laa ci wax dafa passé maa benn séminaire au niveau de Bénin wax naa ko sànq grando yi au Sénégal ñoom ñoo dese toog di xaar client bi ñoo dese toog di effectivement parce que léegi li gën a li gënoon li gënoon li gënoon jafe mooy problème de marketing pour doxal secteur bi léegi fexe nañ ba marketing boobu des jàll na mais lan moo des produit fini et bien fait loolu moo des ci entreprise bi entreprise bu ci de produit fini et bien fait entreprise boobu mënul mënul dem bi chômage mënul nekk parce que nit ñaa ngi sol léegi xool les tenues africaines da ngay xool sax sur les sur les bindi sport télé yooyu yëpp booy xool des fois da ngay gis tubaab bu nabi en africain mhm. kon suñu marketing jàll na lan moo des defar produit fait bien fait bien fait bien fini teg ko ci marché bi day jàll mënoo chemin man boog mënuma toog di xaar fii problème client bi day am këram problème est que dina egsi yow. affiné yi mooy toog xaar client indi nga tisee nga ñëwal ko mu def boo xaaratul léegi mais le monde le monde day bouger te li xew li xew États-Unis xew France day faral Sénégal mun naa defar benn tenue léegi jaay ko en Chine wala ma jaay ko en Espagne wala ah ah fii si avec les nouvelles technologies. léegi est-ce que man de sa xaalis dala ko yónnee par Western wala MoneyGram quelque chose comme ça Orange Money wala dara lépp mu yónnee ko man léegi ma gis léegi. tabaski ba tabaski rek lay am ñaw ko wala yenn samedi yi wala yenn gàmmu yi wala yenn mag waaw léegi li nga dencoon lépp da koy mujj génne est-ce que di nga am kër hmm? beneen bi ngay ñëw ci suñu suñu matériel yi ñuy liggéey amortissement dafa war a am ci suñu matériel yi dañu koy bàyyi xel hmm. dañ ne la ci lay jaay machine bi dañ la tant de mois da ngay amortir machine bi dama jàpp ni boo defee tant de mois wala tant d' année da nga war a changer matériel boobu te yóbbu ko ci matériel de dernière génération boo xoolee ci VU ak yeneen matières yeeg 217 machine ordinateur yi emporté nañu hmm? léegi est ce que doo jéem a ànd ak loolu ba foofu lañ lay bàyyi duñ la commandé réparateur ngeen kon nag amul benn artisan noblesse bi ñuy wax ci artisanat dañ koy jëfe mais du lan ñu koy jëfee mais ñu làmb loo xam ne dañ koy wax rek muy analyse bu am solo professeur Ndiaye Kaye euh, président dégg nga Ndiaye analyse bi def euh, dafay mel ni euh, lu ci bari ci jamono dafa soppeeku li ñuy wax ne jamono dafa soppeeku ba léegi problème yi dafay continuer li président waaw li moom yokk ci moom du du yomb mais nit ñi dañoo war a adopté wu ci jamono fi jamono toll ndax évolution la te vitesse bi muy daw dafa gaaw dawul vitesse bu yeex maanaam bu doon daw vitesse su kàkkatar di nga ko mën a dab mais vitesse su vitesse su lëg lay daw donc loolu bu fekkee ne yow da nga jàpp ne xam-xam ak yokkute entreprise ci sa atelier rek nga yem doo def renforcement de capacité doo dem seminaire ñi nga gis ñiy dem séminaire da naa naan ñii dañuy tàppale liggéeyuñu yokk yokku dalay jafe ndax doo xam li fu jamono toll doo xam nu jamonoy doxe doo xam nu affaire yi évoluer léegi métier bi dafa ànd ak ay renforcement de capacité période bu ne dana am lu bees lu ñëw ñu ñu tàggataat la ci ba nga xam ne yow loolu di nga ci xam di nga ci xereñ donc loolu aussi artisans yi il faut nu bàyyi ci xel dafa am solo pour évolution secteur bi ndax tey jii boo xoolee dëkk bi rek par exemple Thiès xoolal dans tous les corps de métier da ngay gis ne gars yi fi nekkoon démb ak fi nekk tey bu wute na ñi bëgg a avancer yëpp ñi ngi avancé ñi bëggut a avancer nag ñoo toog fañ toogoon rek di sur place mm-hmm. di sur place nag àndul ak développement àndul ak évolution waaw maintenant état nag dañ koy soxla ci lii état bu bu demoon tey jii di di déclassifier benn forêt da koy jox ay habitation mm-hmm. entreprise yi du ma am atelier du ñu am euh, surface superficie bu ñu liggéey mais comment dans un pays mu am suuf ces PME petite et moyenne entreprise amuñu fu ñuy liggéey ay kër jàmbur la ñuy loué bu liggéey bi commencé dox mu waaj mu ne la damay lokk yokk luyaas bi boo ko nee mënumaa lekk mu génne la entreprise boobu yow de déjà bu ko defee nga toxuwaat feneen bala ñoo ñoo ñu miin nga tux maanaam doo am temps évoluer au moment que par exemple Thiès am na suuf suuf am na fi ah ngay dégg ñu la mbuurkaat bi déclassifié nañ ko mais man dégguma ci dara loo xam ne jox nañ ko artisan yi ah mais mais est-ce que est-ce que mën nañu suuf bu ñu génn ñu jox ko ñu jox ko habitation te habitation habitation bi ni ñu ko gisee dafa mel ni ay quelques personnes rek lay lay enrichir rek ndax ñooñu rek la ñuy gis ñuy tourner au ci ci tuuru suuf mais suuf bi ñëpp ñoo ko bokk buñ ci joxee waa marché bi. dañ cee war a jox tailleurs yi jox ci menuisiers yi jox ci artisans ñu ne ah site bii c'est pour le tailleurs site bi c'est pour les menuisiers site bii ci donc loolu day indi évolution day indi yokk-yokk ci dëkk boo xam ne nit ñi am ay entreprises yoo xam ne ñoo ko moom ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko moderniser mais fi mu ne nii même boo ma luwee woon tey jii sama liggéey di dox ma commencé ko moderniser borom kër koo googu sax day jàpp ne man damay takk ci kër donc dañu war a évoluer jóge ci jóge ci étape bi dem ci beneen étape supérieure te loolu loolu état muy état muy municipalité bi yooyu yëpp dañu ci am responsabilité ndax dafa am ñun en tant que artisan ñun loolu mënuñu ko mënuñu ko amuñu ko mënuñu dem fenn dagg dem teg état moo ne ah man damay dagg danaa jël 10 hectares wala quarante hectares wala 30 hectares déccee ko ko artisan yi fii la tailleur yi ne fii la mécanicien yi ne fii la nangam ne fii la ne mais foofu di nga gis mu doon benn genre site industriel boo xam ne day dundaat commerce ba day doxaat transport ba day doxaat lépp day doxaat ndax c'est autour des entreprises entreprises yooyu dañuy fonctionner di lekk di dund di fay personnel tu vois ce que ça maanaam dëkk dafay évoluer di dem mais munuñu tey Ndiassé nga indi ko fii en ville man pour ma mën a dem ci Ndiassé bu ma yoree oto damay gaare à un kilomètre pour dox dem ba ci Ndiassé mais je préfère toog si kii dem sama koñ donc opportunité yooyu ak planification boobu état moo ko mën a toog waxtaan kook artisan yi yi nit ñi am ay place yu baax yoo xam ne mën nañ ko defar même place yooyu état war nañ ci mën a accompagner comme ni muy def cent cent cent mille logements bu dee defee logement jox ko nit ñi jaay leen ko ci prix bi yomb ñoom ñu fay doo daga atelier ne menuisier atelier menuisier standard léegi nii lay mel dama koy def 10 millions eh, eh, eh, am na indil caution nangam at mu ne joxel nangam doo doo wuti yow njaate doo wuti ah waaw mu ngi noonu kon problème bi du ci ñun problème bi ci état na solo sa mission yi am na solo aussi tamit euh, fi nga génn baax na dafay mel ni tout le temps yaa ngi joxe état taxawaayam euh, moo des ci secteur bi waaye xëy na. Euh, dina am ay yu yoo xam ne état defoon na ko ci secteur bi xëy na dañu naan am na njëriñ wala ñu ne amul njëriñ mais secteur bi euh, état xaw nga ko tuuti. Mm-hmm. parce que mosul am benn ministre boo xam ni euh, da ko détaché pour secteur bi kese. en même temps aussi tamit ministère bi ñëwee accompagné na ko ak ay yoo xam ni dañu ñëw pour dooleel secteur bi lu ci mel ni ay projet PEJA ñu ñëwoon projet boo xam ne amoon na solo ni ko tege woon am na solo ci artisan yi xamuñu fi mu toll xam naa sax Euh, la ñu a def euh, projet boobu nga xam ne indi euh, projet bi daal man ci sama connaissance hmm. musuma gis projet bu ko am bu amee noonu solo amee noonu njëriñ amee noonu doole ndax un projet boo xam ne trente milliards la ñu def ko ci entre apprenti ak patron war a defar war a jël sélectionné 8000 ateliers 8000 ateliers. ak 32 000 apprentis sur le territoire national kooku boobu projet man bu ma nee ah ci sama dund man mosuma di gis tasek projet bu mel noonu mais on a vu que projet bi man j'ai l'impression que ñi ko piloté daal des nañu wala mënuñu wala dañuy tâtonner parce que lépp lu nu waxoon ci lancement bi ak déroulement bi c'est diamétralement opposé dañu dem ba mujj gi dañu tas yaakaar sax artisans yi ak apprentis yi et là pas bien état mënul débloquer ay moyen ak banque mondiale pour dimbali secteur bi former xale yi yóbbu leen à la certification ñu jox ko ñoo xam ne tu as l'impression que ñii mënuñu ko gérer wala ñu ko piloter parce que projet PEJA boo ko xoolee ministère de la formation professionnelle moo ko gérer bu artisanat daanaka xamu ci dara yoru ci dara amu ci benn responsabilité et ñun léegi ñooñu ñu ñu ñi ñuy seqal di ko liggéey njabootu artisan yi la nous sommes ñun nous sommes tous membre de la chambre des métiers bokk ci ministère de l'artisanat mais ñun lañuy former ak suñuy apprentis ñun lañuy équiper ak suñuy apprentis ñun lay suñuy apprentis la ñuy certifier mais ñooñu aussi ñun premier plan ci responsabilité artisanat da ko war na am néew ma je n'ai rien ak la ak la formation professionnelle mais formation professionnelle am na ay am na ay élèves am na ay école de centre professionnel yu baree bari ci Sénégal donc bu ñu demee bay former ay artisanat ay artisans donc artisanat dafa war a jiitu ci ci ci formation boobu. loolu moo indi tey soo xee actuellement nii nii nii ñu ngi ci ñu ngi fi depuis euh, une semaine ñu ngi fi bu fa fekkee xale yi aussi dafa am projet bi loo xam ne daf leen ko diggoon daf leen diggoon apprenti yi yu góor yi da leen di jox. xaalis da di aide xam na ñii jot ñuy jotuñu apprenti yu góor yi man ci semaine bii rek nee nañ ma am na ci apprenti bu jigéen boo xam ne jot na cela veut dire donc boo ma ci benn benn rek laa dégg mais kenn rek laa dégg te loolu c'est confirmé. benn benn nit laa dégg. ah ci région de Thiès xam nga man nag xam naa xew xam naa li xew. te PEJA moom euh, moom li ciy yëngu wala li ciy dox man yëg naa ko mais li ma amagun comme information néew ma ñeneen amul de. mais kenn laa yor kon maanaam joxe bi maanaam li ma bëgg a wax mooy joxe bi yaatuwul te keroog bi ñu woowee xale yi chambre de métier pour ñu ñëwaat indi seen carte d'identité ñu recensé leen mais ñëpp yëg nañ ko ndax ñëpp seen xale yi dem nañu mais bi ñu demee léegi semaine passée la soba dégg je crois que mercredi passé dégg naa daal benn couturière euh, ku nekk ci salon de coiffure jot na kooku dong laa dégg déggatuma keneen mais est-ce que projet mën na doxee noonu est-ce que joxin mën na doxee noonu et les gens se loolu baaxul équipement bi dañu waxoon ne du génn août septembre bu ko génn la ñu wax ah waaye ñu ngi octobre waaw loolu qu'est-ce que cela veut loolu mooy lan boobu léegi nañ leen euh, jox équipement indi leen facture jox leen non non facture bi baaxul dafa cher indi leen ñu corriger ko ñu yóbbuwaat ko ñu corriger ko ñu ne indi leen ñu valider ko valider nañ ko. Thiès ba léegi doxul à part ay rumeur ñu nga Ndar après bu ñu jógee Ndar la ñuy ñëw Thiès loolu lañ ciy xam. am na solo. média bi projet bu baax la woon boo xam ni artisan yi amoon nañ ci yaakaar jàppoon nañ ni bu ñëwee bu bari ci secteur bi dina changé ndax ci formation la woon ak financement ah def naa loolu bu ñëwoon dina xaw a changé ci secteur bi euh, ba léegi problème bi suñu importance sëñ Xaati ci doy sëkk man dama ko ci doole dañ ñëw tegal la projet ne la financement banque mondiale ak union européenne hmm. ñoom ñoo yoroon à hauteur de trente trente milliards bu ba léegi ñëw tegal la document bu leer laaj la ñun dañoo respecté lépp li ñu signé ak ñoom ratifié nañ lépp beneen bi mu ñëw ñun la am nga benn projet d'un million cinq cent ñu daw tuuti ne c'est un un million cent lañ njëkk a annoncé après ñu te xamoo koy laaj effectivement pont fekk pont focal artisanat ak des artisans c'est la chambre de métier ak nu ñu mënti mel nag peut-être ñoom it seen gestion au niveau des artisans dafa des moo tax ñu indi benn contournement pour defe woon bu ñu ko indi woon dinañ mën a régler problème rapidement vite fait mais dafa gën a sooxe récemment lañ leen ci dugal bu ñu la bëggee convoqué jaar par la chambre de métier rek xool ak projet bi ni mu bu fi jaaroon mën naa ni état bi mën na fee toog cinquante ans parce que da koy projet bu réaliste la woon lan apprenti yi beneen bi mooy choc bi mu indi dafa indi benn choc entre les apprenants mooy élèves yi ak sax seen papa ndax xaalis boobu ci dugg ah lu bari tas na lu bari dem na beneen bi apprenant yu bari sëyi nañ ñi jóge nañ fa problème boobu xamoo sax noo koy rek parce que lenteur bi dafa yàgg dafa bari dafa bari ay ndëgg sër ba ay ndëgg beneen bi mooy man loolu dama ko jooytu te loolu bëgg naa tamit tous les artisans ñu def ci benn point waxuma un na mais un d'entreprise boo téye de 9h jusqu'à 16h benn butéelu ndox ak benn ñaari kutu jën buy wàcc nga ni da nga koy jox 2000 francs te ñun bu ñu toogee le matin jusqu'à présent ñoom ñooñu di ñëw di ñu ko jox mën nañ leen jënd loolu moom bépp ren bépp renforcement capacité bi am muy état muy keneen ku fi teg. loolu dañ ko réglé te réglé woon nañ ko parce que sur fii fiches fiches yi présence li ñu ci bindoon leer na monsieur Ndoye mi mën na ma teewul maa ne woon kenn bu mu laal les 2500 bi ñu leen doon jox parce que effectivement membre bi jóge woon au niveau de benn structure bu nekk à Dakar bi mu ñëwee ñu ñun au départ bi ñuy départ période mi c'est à 5000 francs yooyu yëpp ñu koy jéggi ak yow di ko jéggi jóge ci 2000 indi añ. indiwuñ ndékki indi tout récemment bi ñu ko dénoncé ci benn point de presse bi ñu doon def le lendemain lañ convoqué gars yi bi ñu ñëwee ñu ngi leen di jox añ ndékki ba pare jox leen le transport à 5000 francs foofu la ñu ngi kon li ñu doon wax du ay caaxaan kon état mi ngi def li ko war a def mais secteur bi ñi ko ŋànk ak ñiy jiite projet yi ñooñu am problème ñoo ñoo doyluwul ñooñu toujours ñooy utiliser les artisans di ŋàcc deretu artisans yi ba fi mu ne koo ci waxati projet wala koo ci waxati sax. boobu am ñi ko jiite ñan nga bëgg a adressé loolu ñi ko jiite mooy ñoom. que mais da ngay ñëw kan ah. ah. hmm, ah, dañuy ñëw pour askan wi jàpp naa ne bu ñu ñëwee secteur bi dañu war a ñëw xool lu ci indi njariñ mais ñu xool lu koy rey quand même. ñoom dañuy ñëwoon nag pour rendre sax secteur bi boobu ñun ñu sax du existe mais secteur bi lu koy rey waaye lu mais projet boobu li grand doy wax projet mënu ko gën a fiable projet bu fiable la mais terminaison c'est zéro plus zéro. zéro mais lan moo ci seen taxawaay après problème yooyu yëpp am ci parce que gis nañu tey ni problème bi am na ñu ngi wax ni euh, programme bi ñu ngi bëgg ñu koy bëgg a arrêté te dossier yëpp ci mois de décembre lan moo ci seen taxawaay yéen acteurs artisanal loolu de bi mu amee avant muy am sax ñun ak doyen Ndoye yi ci ñi defoon nañ benn point de presse ci lañ loolu la ñu mën a. parce que bi ñu demee di demander des informations au niveau de l'artisanat ñoom mënuñu la jox information xamuñu ci dara. loolu lu mën a nekk aussi tamit parce que ah, mais bu ngeen amee ngeen jaaxal wala ngeen bëgg information quand même ko war a seen taxawaay ñoom au niveau de la chambre de métier des trop ci artisan. ah bon ku la mënul lijjantil benn quatre chambre de métier ci tak-tak ndax boo amee problème ba nga xam ni dañuy jaarul ci loxo mu koy métti lu ba ñu jooraale ko ci loxo ndax dina la ko réglé. nañ waxante dëgg la chambre de métier li mu war a régler ci artisan yi état bi tamit lu mu ñu rey rey rey rey rey chambre de métier bi mu yore suñu bopp. ñoom est-ce que am nañ droit wax ni man moom mooy mooy sama problème. est-ce que man ci sama xel. mu gàtt ak sama gis-gis mooy. seen taxawaay moo des. ak seen fulla man doom benn projet pour les artisans bu pare nga may tëb doo ma ci insérer. ay du ma ko nangu. ñoom ñoo waroon ka les quatorze régions. les quatorze régions ñoom ñoo waroon dindi loolu au départ. mais dindiwuñ ko c'est ça. waaw ah, parce ñoom ñëpp dañuy wax ni programme yi dañ leen ci dugal ci commencement bi mais bu ñu demee ba ci biir ñu génne leen ci ñu am information dootuñu ci xam dara. Ah, alors que finalement duñ ci mën a wax dara. seen taxawaay. bu dem bay xëccoo naan nañ ma jox restauration. un membre de la chambre de métier. ah bon. xam ne toog sax ko membre de chambre de métier kii xëccoo restauration pour añ ak yu mel pour yóbbu ko sa kër domb ko pour lan la pour lan la wax waar doone waar xam naa lii dina war a tax euh, waa chambre de métier aussi tamit ñu wax ñu ñoom seen taxawaay ci artisan yi ak yenn information yi ñu indi ko nag parce que jot na sëkk parce que euh, secteur boo xam ne tey nee nañ 65 euh, pour cent ci population bi ñoom ñëpp ay artisans lañ nga jiite leen ah, ñu soxla ay information lu ñu ko am euh, te nga nekk tout près loolu tamit doy na waar wax dëgg yàlla war nañu génn informer artisans yi wax leen ci projet yi fi jaar ah lan moo ko kale lan mooy problème bi aussi tamit ba léegi ñu ngi toog di ko xaar amul suivi te ñoom buy ñëw ci ñoom lay jaar mais bu amee problème ñu toog di seetaan Euh, ñu ngi adressé euh, chambre de métier war nañ ci indi ay leeral te aussi tamit taxaw nañu pour déglu leen bu ñu woowee danañ ñëw pour ñu joxe ci ay explication euh, président Ndoye ginnaaw loolu projet PEJA bi xam ne tey amaat ngeen ministre bu bees muy ministre de l'artisanat bi fi nekkoon dëkk Thiès jege leen trop tey boo ma doon wax ci li nga xam ne mooy bilan xam naa sax bilan bi lépp du neex a présenté mais ci taxawaayam ci secteur artisanal est-ce que li ngeen doon xaar ci moom gis ngeen ko. de toute façon da may may tuuti bala maa dugg ci ah, ma delluwaat ci un peu ci PJA jox la benn exemple. Ah. dafa am beneen projet boo xam ne topp na ci PJA. Mm-hmm. muy Sahel opportunité. Suisse Contact financé ko. Mm-hmm. mu jël euh, soi-disant quatre corps de métier. menuiserie bois menuiserie métallique euh, mécanique oto ak cordonnerie. acteurs yi ci lañ bokk mais kooku ñi koy piloté c'est des ONG boo xoolee ñaari projet yi différence bi da ngay yàpp ne ONG ñoo gën a ëpp rigueur ñoo ëpp compétence Sahel opportunité bi mu fi ñëwee léegi li mu waxante xale yépp tan boo rombee xale yi da ngay gis xale yi sol tenue yu rafet ay euh, chaussures de sécurité ay casque ay gants solo euh, sayet opportunité moo leen ko jox Suisse Contact moo leen ko jox donc ñooñu bu ñu mënee ñëw bërki démoo njaay defuñu fi un an mën a def ay ay résultats ay yu yu palpable Pija nekk fi depuis plus plus de deux ans ñu ngi dugg ci troisième année ah toujours gaa yaa ngi ñaxtu ba léegi kenn xamul foo jëm chambre bi moom duñ ko reprocher dara ndax waxuñu ko dara chambre bi xamul li xew ñu quelque fois sax ñoo koy ëpp information loolu moo jaaduwul ci projet boobu projet bu jëm ci artisan ñi nga xam ne mooy mooy seen kuréel mooy seen ndey mooy seen baay fii xamuñu ci dara c'est-à-dire ni ñu leen beddee moo indi problème bi beneen bi nag euh, mooy le ministre Pape Amadou Ndiaye on rien contre lui hein c'est un homme ku xat nit ku baax la nit ku woyof la nit ku yaatu la mais moom jàpp naa ne ministère bi ñu ko jox mise en train bi moo ëpp waaw da doon mise en train amoon na yéen a def ci dafa mise en train ba ñu remplacé. ah bon waaw la <laughs> xam naa nag yéene bi moo ëpp quoi moo ëpp mais mise en train bi moo bari te yàgg xaw ma nag lu waral mise en train bi xaw ma yéene la xaw ma faute de moyen la ndax nit ñi mënuñu ne amuñu xam-xam nit ñi mënuñu ne moom du nit ku jub mm-hmm. nit ki du kenn du ne du du nit ku social. Mm-hmm. kon kooku boo ko joxee secteur bu mel ni artisanat moo ci waroon def résultat bu ci kenn musta def te ñoonu loolu la ñëpp gisoon loolu la ñëpp mais en fin de compte on a vu que ah man daal jaar-jaaram man sentiruma ko sentiroo ko déedéet sentiruma ko euh, est li tax sentiroo ko du absence su artisan yi ci wetam ah je ne pas xam nga ñoom dañ lay jox ay responsabilité jox la feuille de route nga wut sa cabinet nga mm-hmm. liggéey mais un art cabinet artisanat chambre euh, carte euh, cabinet euh, de l' artisanat tant duñ ci dugal un artisan toujours day des waaw artisan yi kan lañ leen di responsabilité un ministre de l' artisanat mënu am un conseil artisan yeneen conseil lay jëli feneen ba kañ art ñun amuñu xam ko dara nekkul ci suñu bopp fekke wuñ démb fekke wuñ tey xamuñu la xew doo ci jël kenn teg ko ci sa di ko laaj wala di ko yónni donc ay dafa am ay manquement yoo xam ne ñi ngi ci euh, ministère boobu il faut ñu corriger ko waxuñu ne nag ñu jëlu amuñu xam-xam wala amuñu compétence mais ministre artisanat amul benn artisan bu fay xëy aussi dafa jaadu dafa gauche loolu rek problème la non problème la loolu dañ ko war a bàyyi xel moo xam nag maçon lay doon moo xam plombier lay doon moo xam tailleur lay doon moo xam menuisier mais dafa war a am minimum buñ toogee ñu ñu ne bu joxonee ñu xam ne kii de artisan bi xàmme nañ moo xam ne Ndakaaru la dëkk moo xam Thiès a dëkk moo xam Tamba moo xam moo xam fu mu mën a dëkk na doon au moins ci cabinet bi war naa am un hmm. ah, ba ma ba ma déggee ministère artisan ba léegi musuma dégg conseil boo xam ne artisan hmm. mais artisan yi am nañ compétence am nañu xam-xam donc man sayel opportunité boobu suis contact superviseur laa ci ama ci am ay responsabilité ci maa ngi ciy liggéey li ma ci war a liggéey donc am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fii ñoo ma ko xam-xam foofu jàng nañu français jàng nañu métier bi donc ñu war nañoo mën a nekk ci côté ministère bi walla ci côté direction bi au moins di ñu leen di laaj ñuy wax ñu indi seen xam-xam di indi seen xalaat ndax ñooñu ñoo dund ak artisan yi ñoo yarook artisan yi ñoo yendook artisan yi kenn gënu leen a xam artisan artisan kenn gënu koo xam moroomu artisan mm-hmm. donc dañuy am ay yoo xam ne foofu la manquement yi commencé après le résultat il est là mm-hmm. mais je sais que la direction de l'artisanat au moins mën nañ fa am benn benn benn benn conseil mm-hmm. au ministère au moins mën nañ fa am benn conseil mm-hmm. et puis loolu aussi day delloowaat espoir les artisans ñu xam ne ñii kat naw naw la leen am nañu gëm-gëm bu nekk ci ñoom gis nañu ne ñii war nañu mën a dem ci kaw ba keroog nag ñuy àgg ci niveau bu tax nag ministère de l'artisanat doon un artisan ndax fa lañ jëm. waaw foofu nag aussi ah fa lañ jëm nag. waaw war ngeen a dëggal seen ah, bopp. comme secteur bi seen secteur la. ah déedéet ah ngeen am waaw l'économie du Sénégal elle est informelle. le secteur informel daf ci am doole. Hmm. artisanat moom am ci doole. Hmm. nga yaakaar ne dans l' avenir mun ñu am un ministre boo xam ne c' est un artisan. pourquoi pas. comme ni ñu mën a dee tey di jël le ministre du commerce mu doon un grand commerçant. Hmm. mais xam na royage xam na circuit bi xam na jënd ak jaay xam na nu muy demee. même bu toogul ci. ci ci ci ci amul diplôme yu kawe xam nga connaissance ak xam-xam yemul ci diplôme. Mm-hmm. connaissance jàng la ak explication ak dund vécu loo xam ne yow kii da gis ne lii mooy def xam na ko maîtriser na ko nga wutal ko ay conseil yoo xam ne nag jàng nañu. Mm-hmm. tey jii par exemple damay jël sama kaw man ma defoon ministre de l'artisanat mm-hmm. mais damay jël ay conseils. léegi nag man xam naa dund ci màgg ci judd ci yaru ci plus mes conseil nga ne yaakaar ne du ma def résultat. bu ko defoon jaata mi mu def résultat. donc loolu aussi état yi dañ ci war a bàyyi xel. Mm-hmm. ñi nga xam ne tey ñoom la ñu yaakaar. Mm-hmm. ci formation yaakaar leen ci insertion ñu aussi dañ leen war a jox seen i valeur jox leen seen i gëdd. Mm-hmm. war ñoo mën a dem un am conseil des ministres. gis un artisan ci ta un artisan ci taabal ci président war naa mën a voyager. ànd ak artisan. day dem ay foire dañ koy invité muy dem fu ne mu yóbbaale ñaari artisan ñetti artisan ñooñu aussi gisaat fa wutaat fa ay partenaire jàng fa comme ni mu koy defee ak yeneen corps de métier yi c'est-à-dire le Sénégal dañoo jël artisanat teg ko ci suuf ele kon nga yem ci nga dëggati ci ko loolu nag ça ne marche tey jii yooyu yëpp day wëlbatikuwaat daal ci seen kaw ndax ñun nañu waroon dénk ñu téye la ñun mën suñu téye xale yi ndax yoruñu lu leen téye mettre ci condition lu leen ana dañu waxoon ne bulu euh, si dañ koy liggéey ci trois ans. trois ans chaque année dix milliards. Hmm. ana ana ana ren xanaa deux mille vingt deux mille vingt trois bi. waaw ah, première nañ ko moom. waaw bii bokku ci. ci maam xaarim bi heure bi bu ñu joxoon dix mille bulu say say apprenti duñ dem. waaye kenn du ci jël mbëkk mi. jaase mii bu ñu ko joxoon cinq mille bulu ay apprenti am dem dana ko wuti fu mu ko mën a téele. donc dafa am yoo xam ne dañ koy regle waruñu ñun toog sax yéen téyeer yi jóg di ko démarché waat di ko lijjanti ay eh, jot na jox leen jotoo leen warul nekk hmm. dañ ko planifié woon ne 30 milliards chaque année 10 milliards nañ ko def bu jeexee ñu xool leneen ak leneen la teg. am na retard bu jéggi dayoo nag. bu ah, ci am ba tey ñu ngi koy laaj xamuñu ba xam dina ñëw wala di ñëw. ah waaw mi yi nga xam ni état moo ko waxoon waaw waaw waaw ñu ngi ci euh, <laughs> ministère bi. xam naa waaw waaw. waaw kenn amu ci ah, yaakaar parce que yi ñu moom lañ joxe euh, ci saison bi. Euh, aussi. waaw. que téer yi. est-ce que ah man de marché 2023 bi danaa ci baaxal lii ak lii mais léegi boo forcé loolu est-ce que xam nga conséquence bi muy jur te pourtant l' moo ko wax état war bu nu état lu munu wax moom. daf ko war a respecté ko war a def effectivement. ndax ba léegi ci man boulous yi à ma connaissance mm-hmm. dégg gu ma état wala benn parent d'élève ne boulous yi jox seen doom yi baaxul wala ñaw bi baaxul. pour une première kon déjà téer yi def nañu jéego bu am solo. en respectant les délais en respectant les normes en livrant à temps ñooñu nag dañoo mérité état di leen gunge ndax loolu xeetu gunge la dix milliards yooyu pour gunge entreprise yi la. day développer secteur bi. waaw loolu la ci état jublu. kon war ko arrêté arrêté. daf ko war a continuer parce que nit ñi ñu ngi toog di ko xaar cri de cœur la nañ ci bàyyi xel. ndax euh, besoin bi moom tey jii taxaw am na solo am na solo président Pape Ibrahima Ndoye euh, ci li nga xam ne wax na ci léegi ci bourse scolaire yi nga xam ne état joxo na ko te Sénégal yi pour suqali secteur bi première année bi ñaw nañ ko livré nañ ko xale yi ñu ngi koy sol di jàngi bu ngeen gisee ren. xale bu ci dem euh, dugg école gis nga jox nañ ko blouse mu sol euh, muy lu am solo deuxième année bi aussi tamit ñu ngi koy réclamer pour mu ñëw parce que trois ans la war a diire euh, kon ñu ngi koy xaar di ci soññaat état ak ñi nga xam ne ñoo ko yor bu ko defee rek président Ndiassé xam na ci question bi sax laaj des ak yow tuuti rek nga tënk ji est-ce que ministre de l'artisanat war nañ ko jox kenn ku dul ku dul artisan xam naa question bi foofu rek nga ji nga jël sa micro est-ce que war nañ ko jox dul artisan. sëñ même boo ko joxul. artisan hmm? staff bi dafa war a am des artisans parce que ñooñu ñoo dugg ci secteur bi yàgg ci secteur bi xam ni ne ci secteur bi xool su xam nañ dafay soobee xam nu ko mun a régler mais hmm. kooku boo ñu di léef le secteur artisanal c'est pas c'est pas la peine ngay créer bi ministère ma <laughs> loolu lool laa gis ko donc bu ñu ko joxul artisan war nañ boole artisan yi ci euh, ministère bi ko impérativement dafa war lu war a am la kooku jarul sax ñu koy naam naam naam mm-hmm. boo demee yeneen kii à euh, l'extérieur kii da ngay gis seen at même buñ ko deful seen kii day day am artisan. ñaase mm-hmm. dagguma la. Ah. Hmm? dans tous les ministères ministère des finances doo fa doo fa gis ay ay comptable ak expert comptable. Hmm. ministère de l'agriculture doo fa gis ay ingénieur agronome. Ah. waaw ministère de la du am artisanat. mais président amul ministère booy dem. gisaat nañ sax te ministère boobu ñu tudd. Ah. boo nee affaire étrangère loo ci gis du ay ay gisaat nañ sax beneen problème ah, euh, muy chambre de métiers yi pour ñu lëkkaloo ak ministère bi liggéey sax day poser problème. au niveau de hmm. le politique dafa bari trop trop trop trop liggéey. Hmm. le 24 heures sur 24 dañuy politique ñoom dañoo amoon liaison problème politique lañ amoon moo tax liggéey ñoom ñaar doo leen mos fekk ñu bokk ba. donc kon ñu ngi lor artisans yi au niveau de la région de Thiès. Eh, te bu ñu toogul échanger tamit dañu mën a. ku ci ne yaay ci les xaalis bi ñu doon séddale dañu une partie dafa dem ci au niveau de ministre de Pape Amadou Ndiaye. Hmm. moom moo ko séddale ay nit a mag. Hmm. détail yu ne ngay dégg. Hmm. loolu du doon sax sa problème parce que yow lu dégg développé wu secteur moom moo sa problème. mais y' a beaucoup de problèmes ci secteur artisanal xamuñu nag kañ lay rek peut-être ñun suñu njaboot. waaw ah, ministre bu bees bi nga xam ne amaat ngeen ko tey bu ngeen ko doon xaar ci soxlay secteur bi lan lay doon. moom bu ñëwee tas de problème la ki fi newoon deful dindiwul. deful dindiwul. Ah, li fi newoon moo fi nekk rek bu ñëwee xanaa moom loolu moom bu war a régler <laughs> moom moom du ñëw di ko régler mais na ñëw régler secteur bi. Mm-hmm. am lu ci def ci 4 mois yi ko fi dese. Mm-hmm. keneen bu ñëwee def leneen. surtout surtout protection secteur bi aussi. man loolu bëggoon naa ñu ciy intervenir. parce que secteur yi amul waaw amul benn protection. boo xoolee menuisier bois yi ñu ngi koy jooy métallique bi ñu ngi koy jooy téer yi ñu ngi koy jooy fëgg jaay bi mu ngi jóge fu ne ah, importation bi mu ngi jóge fu ne ci lal yi ah yooyu. demal Côte d'Ivoire gi. Hmm. boo fa fëgg jaay usine bi defar vax au niveau de d'Ivoire du defar vax te tailleur yi taxawuñu joxe seen design bu génnee ñoom lañ koy remetre ñoom ñoo njëkk jël matière bi liggéey ci. am ci quota bi ñu ci am ñu door ko jaay kooku Côte d'Ivoire bu fekkee wàññi kon protégé na protégé na le ñu ni ñu ni li ñuy importé ci la ak leneen ñu ni xaw ma xaw ma une une partie du ñoom jox nañ ko ñu jox nañ ko ñu doo ko dégg daanaka muy mel ne pousse ci biir géej mais ñëw yow bu bëggoon doxal l'artisanat dëgg dëgg dëgg na xool li li ñu importé ci wàllu ci ci wàllu lal ëppatoo ci leneen fay rek yooyu yëpp. Hmm. léegi nañ jël commande bi jëm ko liggéey ci dëkk bi ñu xool. waaye fëgg jaay bloqué ko waxuma la un an dalal ko six mois nga bàyyi ñëw secteur bi xool. Hmm. boobaa ndax dinañ dinañ demande bi offre bi dinañ ko defar wala hmm. duñ lu ci ne da koy essayé moom bi mu essayé ci blouse yi xam nañu am na réussite. demande bi ñu daaw li ko tardé daaw jéeg dañuy li ñu demande ci tissu li ñu soxla. amul Sénégal dañu mujj commandé ko Chine. beneen bi tamit ñëw. mais booy defar benn blouse mais laajal tailleur bi mais benn blouse ba nga xam ne tissu bi yow facture woo sax mais tissu bi nga surfacturé un mètre nga defal ko deux mètres commande bi tailleur yi ñëw bi ñu paree dafa desaat lu day lu mënoon ñëwaat beneen commande. tissu bi dafa desaat ci tailleur yi. waaw léegi moom muy perte artisan muy ñaari problème yokk nañu prix bi ñu ko mu waroon a jar ba paree jox leen qualité boobu. qualité léegi nga toog di ko seetaan rek wala nga dem am problème di ko jaay à des prix dérisoires. ci la kii daal saa waay ministre bi fi nekk nii xam na li koy xaar. Hmm. parce que li fi woon dara jógu si dara rien n'a changé. dëgg la am na mu ngi noonu kon ministre bi xam na lu koy xaar euh, ñu dalal ko moom it di ko wax ni artisan yaa ngi koy xaar ci euh, problème yi euh, mu indi ci ay solution waaye protéger surtout secteur bi waaye toog ak aussi tamit union des chambres de métier waxtaan ak ñoom parce que pour nga dimbali artisan yi jàpp naa ni foofu nga war a jaar pour àgg ci artisan yi lépp lu ñu soxla nga mën koo xam mën cee taxaw mbokk yi yéen a ngi woon seen émission 100 pour cent artisanal ñu ngi ci dernière minute yi xaj na dinañ baax di topp RTT TV waaye sant bu baax su suñuy invité président Ndiassé mi nga xam ni tey moom moo fi ñëw euh, dégg ngeen message yu am solo yi nga xam ni waxtaan na ko ak ñun euh, bu ko defee dañ koy bàyyi rek président nga def sa ay kàddu yu mujj ñu bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. Euh, suñu xaadim yi ñu ngi gërëm di gërëm doyen suñu techniciens yi. ñu mm-hmm. am solo yi vraiment di remercier bu baax a baax. Mm-hmm. en plus nag di gën a le président Mamadou Seck. parce que wax dëgg bu ñu wax tamit il a innové. Mm-hmm. innové nañ ko au niveau secteur. Mm-hmm. ba pare ñu daw ci secteur bi di ko mm-hmm. kon nag suñu borom nee naa leen mooy fay. beneen tey ñu ngi nuyu suñu. mën naa général muy El Hadj Ndiaga bi ñu tuy laay ngum vraiment def nañ ci secteur bi la nga xam ni boobu ñun dañoo war a redoubler d'effort pour romb loolu. de même que Ndumbé Diakhaté mm. et tant d'autres mm. kon ñooñu ñëpp bu ñu ko tuddee rek di yóbbaale ñëpp mm. jërë ngeen jërëjëf président Ndiassé ñu sant ko bu baax euh, gërëm ko macha allah am am taxawaay la nit ko am taxawaay la président Ndiassé euh, xam-xam bi nekk ci moom ci wàllu coupe et waaye non seulement secteur bi da ko bàyyi xel tout le temps mu ngi def ay intervention yoo am solo yoo xam ni euh, téer xam nañ ko ci moom euh, ay orientation yoo am solo la euh, ñii nag baax na ci léeg-léeg mu génn ñëw ci télévision bi waxtaan ak askan wi waaye waxtaan ci projet yi nga xam ni tout le temps dañ koy indi pour accompagner secteur bi te dara du ci am avancement président Pape Ibrahima Ndoye aussi tamit moom taxawaay boobu la am ñu sant ko bu baax gërëm ko bàyyi la rek nga def say kàddu yu mujj tàggoog téléspectateurs yi seetaan maam Xaadim damay dool doole sant yàlla rek di doon euh, di am contentement ñu invité ñu ndax ñun aussi ñëw RTT TV dañ ciy sawar toujours mm-hmm. ndax télé artisan yi aussi artisan yi ñoo ko war a mën a dundal ñoo ko war a mën a dooleel kon ci loolu aussi ñu ngi lay sant ci invitation bi maam Xaadim mm-hmm. di sant suma rak suma frère Ndiasse mm-hmm. kii nga xam ne moom du plateau bi moonu boole dañuy tase ci yeneen cadre mm-hmm. yoo xam ne dañ fay liggéey artisanat macha allah ma gis toujours déterma détermination ak taxawaayam mm-hmm. te boo ko déggee tey li mu fi wax mm-hmm. xam na li muy wax xam na ko maîtriser na ko di sant gërëm aussi caméraman yi technicien yi di féliciter di encourager suma rakk le président Mamadou Seck ndax ak kii oh, koo xam ne la aussi moom it marqué na touche am ci organisation bi. Mm-hmm. ndax man it euh, daanaka ci organisation bi laa bokk. ndax organisation téer yi man gisuma lu ñuy def te duma ko yëg. wala duma ci bokk. ba pare ma am njaboot goo xam ne ci la bokk. Mm-hmm. kon man ci laa bokk. Mm-hmm. donc loolu aussi dañ ci am contentement. di leen ci félicité di félicité aussi présidente Néné ak tous les membres du de des terres ndax man nee naa leen man mooy sama organisation référence c'est l'organisation la mieux organisée mm-hmm. la plus organisée et la plus démocratique mm-hmm. kooku moom bu ma ko waxee ma di leen tàgg loolu laa gis loolu laa dund ak yéen te muy dëkk mm-hmm. encore une fois aussi euh, di nuyu sunu tutelle chambre de métier président ba ak ña fa nekk ñëpp tout son personnel di nuyu artisans yi di nuyu chef d' atelier yi di nuyu apprentis yi parents d' yi di nuyu ñëpp woon leen ne daal dëkk bi moom ñi ngi fii te fas nañ fi def lu baax wax fi lu baax ku nu mën a jàppale ñu jàppale ko ku nu mën a dimbali ñu dimbali ku nu laaj ñu tane la ñu seet ñu lay tane encore une fois daal ñu ngi lay sant di la gërëm di am contentement tey bokk bokk ak yow émission bi. jërëjëf président Pape Ibrahima Ndoye euh, kàddu yi am na solo ñu jaajëfal ko bu baax béggee ko bu baax a baax. Euh, massion spéciale ñoom ñu taxawul secteur bi leen euh, ñuy ñaan seen taxawaay yàgg euh, mbokk yi doon seetaan RTT bi ñu gërëm leen bu baax sant leen nii leen leen koy ànd ak yéen ci semaine bu jot ñu jël émission 100 pour cent artisanal ñu waxtaan ak yéen ci secteur bi ci problème yi ci nekk waaye dala ci acteur yi indi ay solution bu ko defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mboolem koo xam ne rek yaa ngi déggee émission bi Euh, di jaajëfal techniciens yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndaloon ci euh, technique bi euh, Doudou moo ne woon ci caméra bi ñu jaajëfal ko bu baax jaajëfal bu baax aussi tamit ci technique bi ki nga xam ne mooy Babacar saw le monteur ñu jaajëfal ko bu baax ci son bi ñu amoon ci juma ñu jaajëfal ko bu baax a baax di daaw ñoom ñëpp ñu gërëm leen bu baax sant leen gërëm aussi président Mamadou Seck ci taxawaay yi macha allah am na solo ni ko ñëpp waxee rek ñu ñaanal ko suñu borom mission bi xam ne moom la ko dénk mu àggale ko ak sagoom jaajëfal bu baax nguy faama Euh, di ko ñaanal tawféex di ko wax ne tey sama kudd nag jàmm la ràcc muy faama tey waxuma la dara sama kudd jàmm la ràcc tey